jaay kër bi dama am ñaari ngénteel su ma ñeenteel bi dama ko war a ngénteel treizième doomu su ma bi dafa nekk en état neuf mois yow nag professionnel nga de yow dofoo dina jàpp la bi nga fi toogee ba léegi waxoo fi daray dof ni ko sànnee nii yàlla na dem te bu mu ñëwaat yàlla boo ko téye ni nit ñi di doxaanee nga ma doxaanee xamewu la tey tey tey aw wër saa. tey nag di nga am temps moom. aw waaye di nga taxaw am sunu temps. aw man laa bàyyi fen ñànku ay fen nii la tax ñànku daal di wër la fen rek. ma li ñu doon dañ koy takk ci weeru kool. waaw mais xaaral benn saa am sunu ci lañ ma libéré man man da ci lañ ma moom sa am nga droit jaay ko mais dafa am sart yu mu a aw. waaw yéen kon kon réunion bi réunion bi maa maa tax. Eh. Ah. ah kër gi da nga jaay wala. kan war a a ma jaay kër gi. yaa ma wax eh, eh, man am man sama problème la am xaw ma man maa dégg wolof il paraît xaw ma noonu yéen a amul déggukaay. ne fii. mu ne ñaata ci laa doon wuti 1000 bu ma waaw bu ma ndogoo 1000 fan. waa sama ndogu mu waay. yoroo numéro ak góor ñi. aywa woote ah koy woote. ban nga wàccal di nga toog. Sam ngi yaa am yaa ngi felaan man nañu xolite gaa yi suñuy tànk suñuy bët hmm. sama nijaay la ma wax mu teg si naxay di rek dafa yaa nga saay man damay duul ak man yooyu man waxuma say duul na yem ci yow fa fi la yem non fi ma jaarax moom lépp yëg nga ni boo sàgganee mu dem waaw j'évite les décisions avec les femmes waaw mais quant à les les hommes kan ngay attaqué le gos la waaw attaqué ko na ñëw bagage boo ko laajee dama ba toog man sëñ Modou Guèye borom kéemaan laa man la man ak Ama Baldé soo ko xoonam eh, boo tiiree mu tàkk déranger faya yow ñew sa kër ñew ci kër gi daf may neex mais nak dama japponi boy ñew di nga and ak sama waji sama wajal koko de papa dama koy sax faté bu nekkee ci kër gi day mel goor góor ci kër gi leneen la may saf mais problème ta ñak yu tamit problème ta ñak ci ñaan yu bëggante faw problème am ku ci nekk mëna xam sa ñaan da ko kooku kay xam na du da mën bay doxal na doxal mais sax na xoola tey laa lay wax lu ma wax yaa fatali ko yeña ba ngeen ni ànd kër ga dama doxaanti. wa yau wa wa wa jour bob pour man yow yaay wax pour man yow ya may waaw. surprise bi am moy mom ba mu waxe te sax nak yow ya tax ma nangou ko de sérieux bu du woon yow wala moom kese mu ñëw duma ko nangul <laughs> sérieux nag xam naa nag dina la bett mais moom mu foogee mu ko ko woon sax moo tax ba mu waxee dama am déception bu rëy ndax yow ni ma la gisee nii ah aka neexoon mu doon yow kon kenn waxatu ko nag. si génn ndax nga di balu balo ak, defena gënu ci man bu balu di am man ma wara balu ak kanta sama digënté ak yow nangul na la ko des na ci yow mais nak nek fi di xaar suba wala ginnaaw suba wala ngay ñew di dem non non bi nga may bëgg dafa am fo jaar ci sa famille te yit bul fàtte ni da nga ma mayon baat kon fi sey amatu kon donc c'est bien beau ñu ku resto ni bo gisé ma def ko sama directeur mënuma ne ma nañ dem resto wala dara ñu waxtaan mako koy baña mais nak ma antul man ak yow lolou du jaaral fi nga jaaroon ñu may mala problème mais nak lenn dina bëgg mu am sama digënté ak yow tamit sa yaay kenn wu ko sa wajur la ndax mom na nga mel ba ma bëgg la yalla ak mom sa sœur sa sœur la yéen bokku bokk benn sang aduna du yàgg ba nga dem bako wala mom mu dem bala mais man nit bu fatani ni liye moy soxna la ni may mala ngay sama kilifa ya ma wara yir ku nekk teg ko ci place am cër ba mu moom nga jox ko ko waaw loolu moom dama ci insister aussi pour sama diggante ak yow bañ a amaat erreur ndax bul fàtte benn fase jub na sama diggante ak yow waaw kontaan naa trop ñu nii sax sama xol sax dafa fees parce que man lii berte ma ci yow jigéen bu woon góor buñ demee ba di ko wax lii tey référence dëgg nga ci dëgg buñ demee ba maam Cheikh Ibrahima Fall di wax naan dignité ngor kóllëre loolu lépp bu ko demee di wax lii moo taxaw jëkkër dañ koy suturaal jëkkër dañ koy sàmm dañ koy aar buñ demee bañ naan góor gu baax bi tax ñiy wax jigéen bu baax moo tax góor mën na am ay milliards bu amul jigéen bu baax amul dara baax nag moo tax mu lay wër fu ne parce que booba noonu du mu la wër te amoo fi way wu rafet way wu ñaaw ci sama diggante ak yow depuis ba tey bi ma demee man kay maa doon góoru benn nopp rek topp sama bànneexu bakkan rek di déglu samay waxu way jur di déglu sama waxu mag waaye yow xam nga ni lii man gënaluma waaye ma xamal la leen góoru benn nopp moom jàppal ni bis ni ki tey dootuma dalati samen studeer. premier jour bi ma la gisee man ma bëggoon sol suma dal ñew sa kër seesi la. waa léegi yow lan mo ta defoo lool. dafa di sama xarit. oh mu ñaan ma ne ma ki fa nga bayiko ko man té sama xarit la fa mu bayiko waye buma léron ni buma léron ni ni lay def wala ba problème yi ngeen di am non mom xam na du la récupérer. voilà isa xamal muy lan. kenn toñuma yow yaama toñ tooñ ni mën ta ñak ah mais yaama toñ léegi sax xamal lan la ñuy def. muy lan defaral ma café. da nga bëgg naan café. bu baax sama dàll yi ba pare. ankay ankay ankay. mu ko ankay. man daal yii laa na góor da ngay jóge nag. ankay yow ya kay ya. fu mu ne rek. mais yéen lu di defal. waaye nah, mel ni moom ngal ba ca kër ga. yéen seen disposition maanaam dañ cee war lu ngeen bëgg waa tamit surtout loolu noonu yéen la ñu am. ah, ah yéen ñuy jural suñu suñuy doom. bu la neexee mën nga ngaa bàyyi. sa doom ma tëral. ankay ankay ankay ankay ankay yow mets-toi à l'aise nii rek euh, suukar si day ëpp wala. non bu yem rek <laughs> yaa tey rek laa la nara defaral café di kaf yow ba nga yaakaar ne damaa dof moom ne déedéet man li may laaj ba xam sama bopp laa koy laaj man kii man man man papa maa taxaw nii wala du man lu mënul ñàkk ci dund moo di koom-koom bu nit ñi amee nga am soo wutee am boo toogee itam di gën di am mooy càngatu fataan fataan cangat gi sang bi moo ko fiy def ñi ko xam duñu fa gëj ñi ko masalaal rëcc wuñu ko càngat gi fataan fataan la foor na fooraay goo xam ne ku repp koy laal ñaari yoon ci at mi lu ko mooy yow mi ko laal ñaari yoon ci at mi da nga génn réew mi benn wala daañu la ñamal kaso ñaar loole nag mooy firndeel fooraayu càngat gi te la koy defee seerul yëpp ma wax nag ay mbir la yoo xam ne liggéey lay laaj balaa koy def ak yow li si xaar ko gis say mbir génne génnee say sarax doog a yow ci liggéey bi numéro téléphone 77 972 98 81 Serigne Modou Gaynde Kéemaan Mathieu Kër Sambaraxi Njóobeen bégte la ñeel réew mi lan la a ana ci lu ma la yónni woon Aïcha lan eh ma ne ana sa nijaay luy baaxul eh ana xaalis bi jox na la ko ana mu mu tëj ma waaye a fen yow léegi da ngay fen yow fenuma de ah yow ana xaalis bi yow laa wax joxuma ko eh lii laa la jàngaloon yow lii laa la jàngaloon ay fen yow ma xam ko bu baax ah nga koy sosal e eh, ana xaas bi yow sosuma sosuma bàjjan ay sos ngay tax ma fu nekk nii sosuma sosuma tey rek laa lay won lu kenn dul wane ci kenn eh, jaaral bi ci biir yow tey rek laa lay won lu kenn

ñu jox la paaka pour nga jam ma nga ma koy jam yow Alé ma def tamit war nga maa topp di di jël di ma def sous écoute di jël ay photo di ko jox sama jabar man nii eh xoolal bu ma fonton ah gis naa envoi yépp yow yaa ma photo yónnee ko sama jabar tu n'as pas honte yow war nga maa def loolu ak fu nu jaar yépp maa jaw lan moo tax nga photo lan moo tax nga photo mala bëgg xam ale lan moo tax nga may photo diko ko sama jabar lan la non directeur xam nga sa jabar xam na mo suma ma lay surveiller dafay nit ay pro suma ma ak jigéen mako ko ko ah damay gën a yéegal teg ma place secrétaire sama niveau gëna a yéeg. Merci. Ali place su secrétaire la dig moo tax nga may topp et puis mademoiselle Seck mii elle moom moo la gën a digne yow. waaw ñi nga jàppale seen yow li ma lay fay dama ko fay kenn est gis na li ma lay fay dama koy fay kenn fii léegi nag xam nga lan la fii man maa ko moom bu ma la fa gisati. directeur directeur sama yaay su ma la yaakaar xoolal. man lu ma war ak sa yaay dinaa ko def sama entreprise bu fi ñëwati jugal nga dem. doo ma jàppale mu def loolu. allez jugal nga dem jàppalewu la sama dis décision def naa ko ba pare jugal nga dem man li ma war a yow jeex na je coupe les ponts jugal nga dem. nit ku bon nga yow. Allez, venez sur mon bureau, s'il te plaît. Ma décision est irrévocable. Bienvenue, déjà, mon bureau. Merci.